jërë ngeen jëf ñu ngi leen jaajëfal baax baax seen ànd ak Dakar Animaux point com tey ñaamaat contentement bu mag a mag a mag a mag euh, ñëw nga xam ne ferme aquacole bu euh, intégré bu Thiès benn la fi man jël sa bu ak bu bu bu <laughs> Ndakaaru bii moom la ci Sénégal <laughs> te am tey euh, Moussa ñu ngi lay jaajëfal baax sañ sa bi rafet na de. Ah, waaw waaw waaw bii de madame moo ci génn. madame Mati Seck la tudd. Ah, Mati defar nga ba baax ñawal di ko bu baax moom itamit. Euh, di nuyu internet yi di nuyu aussi waa Dakar Animaux euh, di leen jaajëfal ci déplacement bi ngeen def di ñëw ci euh, ferme bi di leen ci remercier bu baax a baax baax. tey te ñu ñëwaat parce que bi passé ñu ngi woon ñu ngi nekkoon ci wàllum jën yi muy image yi ngeen di gis noonu mu nekk liggéey bu ama ama am solo boo xam ne man vraiment bëgg naa prochainement boo gënee am jot ñu jaaraat ci waxtaanat encore ci ci ci ci jën yi donte li ci waxoon leer na doy na mhm. waaye nag buñ ci mënee a dolli dina baax loolu mën ko may. saa yu leen di neex rek dinañ ko def. amul benn problème. ci ginnaaw am am parti boo xam ne da ko dencoon <laughs> waaw bii parti bii dafa ko dencoon nangu ko wane waaye xam nga dañoo sopp mhm, mhm. ñu ñëw fekk fii ay ay kanaara fekk fi ay oie. Mhm. Euh, fekk fi benn xeetu élevage boo fi def tamit ci diggante kanaara yi ak jën yeeg yooyu nga jaxase leen. muy loo na ne jàppoon nañ ne mën mënuñoo ànd. genre élevage bi ngay def noo ko tuddee. waaw lii nag moo waral turu intégré gi. parce que boo nee ferme rek ñëpp a ko am booy def euh, bay yaa ngi am nga ferme boo yor élevage rek yaa ngi yor ferme mhm. mais intégré gi lii moo koy indi maanaam boo xoolee lii suñu ginnaaw mhm. étang la bokkul ak bassin xam nga bi passé yaa laaj lan la lii nu mu tudd maanaam ay ay bag la yooyu ma leen noonu lii bassin la mhm. alors que bii étang la bokkul ak beneen bi bii dañ koy gas def bâche ci suuf léegi bii avantage bi mu am ci li ñuy def ni mooy dañoo délimiter espace bi bi ñu ko délimiter dañu dugal li ñuy wax ay kanaara kanaara yi nag luñ ci dugal bari na dugal nañ oie dugal nañ ay colvert dugal nañ ay ay peut-être rouen mën nañ dugal nañ aussi ay euh, pékin yëpp ci biir donc yooyu yëpp espèces yu bari la yu ñu boole ci biir ñu cohabité mais lii surplus bi mooy dañu def ay jën ci biir ndax xam nga kanaara dafa bëgg di sangu lu muy gën di sangu di am ndox bu bari di gën épanouir di la gën a jox ay jën ay nen ñun dañu dugal ay cibir, ci biir hmm. jën biñ ci tilapia hmm. tilapia liñ koy xamee mooy day jur day jur lu bari di jur di jur di jur nag hmm. limi jur lu euh, lu ci ëpp kanaara yi ñoom ñooy lek jën yu ndaw yi léegi ñun yi benn yoon lañ leen jox ñu lekk di ci des ci biir étang bi lañ koy fekk lekk ko léegi nag kanaara yi ñoom bu ñuy di sangu ci étang bi day tax étang bi day aéré maanaam dañuy dimbali jën yi ci ñu mën am lu ñu donc dafa am solo lool lool étang bi boo xoolee jën yi dañuy gaanawaay ci biir kanaara yi di gaanawaay ci biir ba pare mu am verte verte bii ngay gis léegi loolu day tax ndox mi day riche lool lool lool lool lool riche lool ba ñun du jar ñu utiliser engrais chimique hmm. donc te dañuy am résultat yi nga xam ni ñee moom la ñu am donc ñun euh, élevage bi ñu def nii déjà dañuy réduire de moitié aliment bi ñuy joxe ndax jën yi du ñu jox duñu leen jox aliment ñoom kakaawu kanaara yi la ñuy lekk donc kanaara euh, yi benn yoon lañ leen di jox mais du ñu utiliser engrais li ñu waroon a utiliser engrais aliment ginaar lañ koy jënde aliment kanaara lañ koy jëndee te dinañ am ndox mu fertile boo xam ni dina permettre suñuy garab ñu daal di dund ci ci jàmm évoluer normalement donc système bi moom c'est un système vraiment ndax élevage boo gis li ci gën a jafe mooy aliment buñu régler problème aliment bi rek li res day day day yomb lol lol lol ndax fi ngay gis ni dinañu relever au moins 17 ba 18 nen par jour. muy oa ak kii confondu nañ ci relever lu toll noonu di ko dugal ci couveuse yi ngeen di gis ci biir muy toj ngeen di gis canaare euh, yu ndaw yi am nañ fii au moins tey jii nii ay trente kanaar yu toj tey yu génn ñu ngi ci biir euh, ñu ngi ci biir kaaf gi ñu nekk di leen euh, di leen di leen grossir donc ça veut dire que activité bu am solo la bu am am am solo la bu permettre aussi dépenses yi sew yi nekk ci ferme bi yëpp canaare yi ñoo koy génne dépense yëpp yëpp luy dundal Autriche yi hmm. luy dundal yeneen activité yëpp yëpp hmm. Canaries yi ñoo koy génne donc ça veut dire que euh, activité bu rentable la pour une personne mu mel na kon ñi nga xam ne ñi ngi yëngu ci wàllu mbay hmm. euh, donc ñoom war nañ ci adopté seen système bi ñoom war nañ ko tricher war nañ ko def ñoom seen euh, képp ku yor tool rek war nga mën a am lii parce que ah, parce que des fois nga soxla fiyanti ginaar bi rek damay dégg gars di ko jooytu dafa manqué dafa manqué dafa manqué alors que boo defee lii di nga am jën di nga am Euh, di nga am kanaara mhm. di nga am ay nen di am fumier en même temps mhm. Mhm. waaw bii moom dafa am solo ndax tablettu kanaara bi ñu ngi koy jaayee quinze mille mooy nen bi nen bi mooy colvert yeeg pompon yeeg yooyu noonu seen tablette confondue ñu ngi koy jaayee quinze mille te ñu saa ku ko soxla mën na la woo nga jaay ko. 15 ku ko soxla ah, dañ koy garanti au moins di nga am lu mu dee dee dee quatre-vingt-dix pour cent

amul y' de travail du tout lenn rek moo fi liggéey muy remplissage des fois ndox mi day eutrophisé wu boo ko fi toogee lu yàgg day day eutrophisé wu maanaam day dem ba ndox mi day far bu faree danga koy changé defaat beneen ndox moom la ñuy def nii dañuy changé gi ngeen ndox mi ni muy duggee mhm. mooy soppeeku indi ndox mu bees pour que kanaara yeeg jën yi ñoom ñëpp nekk ci jàmm ndox mi gën a gën a gën a beesaat loolu fi nekkaatoon tamit ndox mu riche lay nekk pour gàncax ndox mu riche lay nekk pour gàncax gi ndox mu riche lool wax dëgg yàlla ndax état bi aussi day am benn ban buñ ko vidé day am benn ban buy nekk ci suuf mhm. ban boobu noonu tos la dañ koy génne di koy sotti ci compostière bi nekk feene loolu day tax bu woowee dañ koy mën a def compost di ko di ko di ko def ci suñuy plantation mu nekk lu am solo loo xam ni amul dara lu ñuy sànni dara duñ sànni dara duñ sànni dara même jën yi des fois dañuy defar géej gi bu ñu defaree géej gi da gis butit yeeg bopp yeeg der beeg yooyu dañ koy wal ba mu mokk mhm. di koy mm-hmm. ñu ça réduit carrément les les coûts de coûts de coûts de production. Mm-hmm. D'accord, Moussa ñu lay ñu si nga gëm fi ginaar mm-hmm. euh, man ko ah, <laughs> jours la mais loolu moo gën a moo moo moo yàpp nañu ne mooy ginaar gu gën a rëy mais boobu moo gën a rëy poulet de chair. fuuf def nañ expérimentation bi données yaa ngi fii. Hmm. Euh, ku ko bëgg gis mu nga ñëw consulter ko. Hmm. Euh, ba ñu amee quarante cinq cinquante jours hmm. quarante cinq jours. am nañu trois kilos. ginaar gi 45 jours 45 jours am nañu 3 kilos bañ ko yëkkatee pesé ko 3 kilos lay pesé donc euh, fañ ko jëndee ñun ginaar gi ñoom pondeuse dañ koy utiliser. bu la neexee mën nga koo def pondeuse. ñoom mu lay jural ay nan te rendement bi la pondeuse di jox moom la lay jox. bu la neexee mën nga ko def reproducteur. loolu yëpp ci alimentation bi lay di lay dif lay différencier wu. mën nga ko def producteur mën nga ko def aussi yàpp am na ci ñaar yoo xam ne dama leen a génne di leen jox croissance continuer xool ñoom seen croissance fan lay am. instant yi ñu ci 4 kilos 50 cinq cent te am nañu 59 euh, jours. donc ça veut dire que euh, ginaar gi moom mm-hmm. euh, te yàppam. li ci am solo mooy yàppam yàpp kii lay saf yàpp pële la ko moom lay saf ah, waaw boo xoolee te te ginaar gi bu ñu bu weexee mën na laa jural bu xonk mën na laa jural bu ñuul mën na laa jural lépp couleurs yëpp lay génne moom la ñuy wax ren boobu ren boo mooy arc en hmm. lépp lay joxe d'accord lépp lay joxe. mom cosaanam fan la du Sénégal cosaanam Inde la. Inde lañ ko euh ay nen lañ la la gars yi apporté woon. daal di koy ki ba légui ni man ma ngi koy amna ci yo xamni dama ko garder pour juste reproducteur. Hmm. fi ak fan yi new inshallah rabbi dinañ commencé def production bi ku ci soxla rek dinañ la ci mëna jox bu baax a baax a baax. nen yi moom disponible gul. nen yi instant yi ñu toll disponible mais dans maximum deux mois. Hmm. dinañ commencé di def production bi bu baax a am de manière intensive bu ko defee ñu mën servir ñi nga xam ni bëgg nañu euh, rainbow ñu mën ki am bu baax a baax a baax te rainbow plus la bii nii voilà rainbow plus en fait dafa am xeetu rainbow bu njëkk a ñëw mhm. boobu euh, moo gën a moyen màggam moo gën a yéex que màgg bii nga 45 jours nga am 3 kilos 500 boobu euh, moom la ñuy rainbow plus mooy ren boobu plus bi boobu moom te nekk ginaar bu am solo moom tamit waaw waaw ñu gis ne ba tey ci biir ren boobu mhm. gis nañ fa ay naat euh, gars yi doon wax ne naat boo ko bàyyee mu naaw naat day def lii naat day def laa mais gis bi naat yu rafet ah, yoo xamante ni vraiment mhm. day ba mu budul ndawal gi sax dafa rafet ci kër nit mhm. nit nit nit am ko noo mën a def ba boole ñaari ñaari espèces yooyu te bokkuñu ñu mën a dund àndal waaw boo xoolee sax ñetti espèce la amna na lu ñuy wax jamu job mooy pan hmm. mu ngi ci biir hmm. donc ñun boo seetloo euh, bu dee oa yi dañoo intégré yeneen espèce bu fekkee ni autruche la dañ ko booleeg yeneen espèce bu dee ginaar yi dañ koy booleeg yeneen espèce ndax loolu day tax yow yi li ngay yar ñoom ñooy gën a résistant ci maladie seen feebar du yomb hmm. pour ginaar yi du yomb ñun feebar fii nii macha allah sonaluñu lu feebar bari bari bari ñun duñ ci pas parce que ñoom yàgg nañu tàmm tàmm nañu di jàngante ak ñeneen ñoom ñoom ñoom seen biir donc du coup dañuy développer résistance dan xam ni jën yi euh, kii mm, mala dañuy développer résistance ni day am solo lol ci ci ci ci seen ci seen développement day tax du ñu gaaw a feebar. mais commencement bi nag dina am pro dina compliqué parce que autriche yi ak bëy yi bañ leen di c'était difficile. Mm-hmm. dem ba bëgg ko arrêter.

te du def dara te bu njëkk ba daawuñ laale. daawuñ laale lépp dressage la lépp temps la lu temps bi temps bi lu mu gën di dem rek. Mhm. ñoom ñuy gën di miinante dañuy dem ba mel ni ñoo bokk espèce alors que bokkuñu espèce. donc loolu moom moom mooy ferme intégrée loolu moom mooy intégration bi ñuy def espace bu ndaw lañ am nag fii nii 1500 mais ya gis nga li fi am ci espèce. c'est bien donc man lii sama idée. fii ak euh, ñaar wala ñetti weer chaque mètre carré dina ma indil dara. bu dul fu nit ñi jaar di dox chaque mètre carré dina am lu ma war a jox ndax mënoo am ferme bu toll nii ba pare am espace yoo xam ni defoo ci dara loolu du yoon man li may sama sama objectif mooy mètre carré bi ne ci ferme bi bu dul nit ñi dañ ciy dox pour dem mhm. damaa war a génneel xaalis d'accord war na ma génne lu mu tuuti tuuti ci weer bi 1000 francs wala 1500. Mm-hmm. lu mu ndaw ndaw. Mm-hmm. donc loolu nag même ba ci biogaz dañ koy def ñu ngi koy waaj ñu ngi nii di gas ay ay ay ay fosse mm-hmm. pour defar ay digesteurs ay biodigesteur pour mën a defar biogaz. ndax euh, am nañ fi ay poulet de chair. poulet de chair yooyu noonu gaz bi ñuy jënd pour di leen tàngal. Euh, seen démarrage war nañ ko mën defaral suñu bopp ah. am nañ fi ay friand de lu ne.

dañuy waaj ibbi benn filière bi ñuy wax transformation agro agroalimentaire léegi euh, bëy bi li muy joxe noonu dañ koy def fromage loolu suñu projet la bu bu à court terme euh, génnee meew mi ne ci bëy bi di ko def fromage donc loolu waa transformation ñoom ñoo ci war a liggéey moo tax ñu indi bëy yi pour ñu adapté wu déjà commencé seen production de de lait bu ko defee euh, fii ak déwén incha allahu rabbi filière bi ibbeeku ñu mën a commencé suñu ay transformation agroalimentaire donc bëy moom Euh, bu góor bi mën na ngand lool day nekk viande bu jigéen bi nekk laitier donc loolu dafa am solo ndax euh, gis nga euh, bëy yi ngay gis ni ñu ngi leen jëndee lu cher bugguma wax ay prix mais ñu ngi leen jëndee lu cher lool lool lool yombul ñu ngi leen jëndee lu cher waaye jar na ko jar na ko wax dëgg yàlla jar na ko lool lool lool lool. ndax élevage moom loo ci def rek dina la ko delloo. lu mu cher cher produire fi nekk li bëy yi. waaw bëy yi bëy yi de Marodi yi commencé nañu joxe nañu seen première doom. léegi nii instant yi am nañu benn doom bu góor. mais xam naa ni ñu ngi commencé waat di waaj a déclenché fer sax ñu ngi waaj a déclenché waat femelle bi. pour mën di amaat beneen doom. pour production laitière am bañ a taxaw. noonu la noonu la demee. mais en tout cas lu mel nii. Hmm. dafa ndax ba may tàmbalee man ba ma jógee ci bitim réew benn bassin laa tàmbalee sama kër. nga def euh, France. Euh, at lak laa fa def. yàgguma fa. mais damaa dem xam ni man mii dama xam ni lii du sama dund. lii moom du sama dund quoi. ma nii naa dellu. avec l'aide de mon ma de passage ils ont été de vraiment aide bo xamni mënuma ko mesurer ndax nga ñu ak waaw légui nak euh, vraiment bassin la tambalé yar ko sama biir kër mu mat ma def ko je yenn samay dem jaay ko ci marché ba France la hmm. yenn ay jaay kii xaadaa dof. boobu man maa ngi gis leneen. ñoom gisuñu. mais man maa ngi xam naa fi ma jëm. jaaykatu géej la léegi lu ne ñu wax ma ko. mais ma sëgg rek foncé. foncé foncé foncé deux mille dix huit deux mille ba deux mille vingt moo indi lii lépp. donc euh, lii itam ba muy tàmbale benn laa woon léegi maa ngi ci seize. te ñi fi ñëw. ba ñuy ñëw euh, ñu ci ëpp. 99 pour cent yëpp ay célibataire lañ woon hmm. mais léegi hmm. takk nañ ci jabar hmm. ba am ci ay doom ci activité bi donc ça veut dire que c'est une activité boo xam ni vraiment wax dëgg yàlla bëgguma wax Sénégal moom neexut a waxee waaye boo activité bu am solo la bu am solo la boo xam ni ku ci dugg surtout pisciculture intégrée intégré gi dama ciy insister parce que secteur bu ne dafa war a a dimbali moroomam secteur bu ne day dimbali moroomam donc intégration j'insiste sur ça kuy def ferme nga une ferme intégrée Nous, ñun dañ une taxaw bu un spécialité technicien supérieur en agriculture et doctorant en pêche et aquaculture donc nous, ay jeunes ku diplôme Hmm. ingénieur hmm, donc ñun ñëpp ay jeunes lañu yo xamni dañuy ferme installer ay ferme yu dul jeex hmm. au niveau du Sénégal donc la, ku ci bëgg a ferme rek tu peux nous contacter wala ku ci am ferme bo xamni day soxé c'est pas rentable du tout ndax loolu bari na ñuy installer sen ferme ba pare génnewul xaliss loolu bari na loolu boo boo ñu contacter dinañ la wax les activités à mener et les intégrations à faire yo xamni dina tax yow sa ferme daal di ndax du fu nek nga mën a def lii. d'accord ndax dangay def prospection de site. Mhm. xool site bii nii lii moo fi mën a dox ak lii ak lii ak lii. Mhm. nga daal dugal say say say say activité ci biir ferme bi mais doo gis ni kee defal na lu dox rek nga daal def loolu <laughs> mu ngi noonu mu ngi noonu Moussa en tout cas ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal bu baax si sa disponibilité tey moom jël nañ sa temps bi yëpp <laughs> ah, waaw daanaka liggéeyam bi yëpp ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu baare ko buñ dikkee ba léegi mënta fexe ba liggéey dara gaa ngi taxaw di xaar ñu la si ñu lay euh, gërëm bu baax baax baax si explication yi ak yaatal bi mm-hmm. euh, tey lan ngay lan ngay ban message ngay jox si jeunes yi ñi nga xam ne jàpp nañ ne Sénégal amut liggéey ñu bëree bëri loolu lañ wax Sénégal amut liggéey Euh, ku ci xas dugg Europe sax yaakaar ne fi mu nekk ni daal yow rëcc nga waaw mhm. lan looy looy wax ñooñu waaw euh, ñu bañ a xeeb liggéey mhm. bañ a ndax man bu ma xeeboon liggéey peut-être yàlla mën naa def ma yegg si fii donc bañ a xeeb liggéey tàmbale ci dara boo tàmbalee rek yàlla gëm ko mhm. yàlla mën la cee jàppale c'est pas euh, France nga war a mën a tekki jee wala États-Unis force non non non am na ñu fay tekki jee waaye am ñuy tekkee biir Sénégal itam te ñooñu ñoo ëpp. donc man jàpp naa ni jeune moom bu gëmee boppam rek mën na ci génn bu baax a baax a baax juste détermination la ak persévérance amour mooy jiitu bëgg li ngay def ndax man jën dama ko bëgg. moom moo lay tax a persévérer moo lay indil persévérance ndax bu deewee nga dem jënd waat dugalaat mais bu dee amour amu fa rek bu dee benn yoon nga ne nga bàyyi naa. parce que bëgg mo jitu lepp bo bëggee am persévérance li lepp la ci fekk. lepp lo bëgg mëna la ci fekk donc man mom loolu lay lancé étude génie, génie, yi vraiment liggéey am na fi seulement dafa laaj persévérance ba paré laaj euh, laaj vraiment passion. pour nga mën ci mën ci mën ci évoluer. vraiment jaajëf jaajëf jaajëf